voilà donc euh, comme noo leen ko xamee ñu ngi jublu ci euh, tabaski bi euh, xale yu jigéen yi tailleur yi commencé nañu di fanaan xale yu jigéen yaa ngi commencé <laughs> fees ci marché yeeg yooyu waaye góor ñi am na ñoom ñi li nga xamante ne moom la ñu def priorité moo leen yitteel te loolu sax moo jiitu boo waaw loolu eh, xaru tabaski. looloo tax ñu naan tabaski mais tailleur yi yooyu yëpp baax na euh, xale yi jigéen yi salon yi yooyu yëpp baax na sa classe. waaw yooyu da neex euh, yooyu moo la neex yow. waaw yooyu da leen neex bu baax xam ko jënd ci àdduna. xam naa ni da ngay dem ñu boot la rek. dégg nga wax nee la bay lay jënd. sama papa duma duma boot ren ren damay eh, damay jënd camion xadi colonel boo leen ko yaakaaree moom mi kon doo leen tëbës yéen a ngi may seetaan. <laughs> dinañ tëbës gi ndax xaaruñ sama bos. <laughs> waaw jërëjëf <laughs> xoolee tëbës gi ji boo xoolee démb ci euh, le 30 juillet bi euh, dañu def benn xaatim boo xamante ni Dame Sow moo ko def muy directeur euh, général bu élevage. Mhm. def ni ñoom Sénégal soxla nañ lu ci toll ci cinquante mille moutons. Sénégal moom lañ soxla fi nekk nii lu waru jëm ci tabaski ji 700 750 000 moutons yi boo xoolee dakaar rek soxla na 260 260 000 seen dakaar loolu la soxla. Mhm. tey boo xoolee euh, lu ci bëri dañ koy jéggaani ñun Sénégal ñu ngi produire euh, ci xar yi cent 000. mouton la ñu produire kon trois cent cinquante mille yi dañ koy jéggaani bitim réew mhm. ku ci mel ni Mauritanie ku ci mel ni Mali ñoom ak Niger day dem ba Niger dem ba Burkina mais lu ci ëpp ñu ñu yaakaar pour ñu ñëw fii Mauritanie la ak Mali ñoom lañ gën a yaakaar pour ñu ñëw ci ndax boo xoolee ministère bi buy dem sax ci ñaari dëkk yooyu lay dem Mauritanie ak Mali pour defoo benn sensibilisation pour ñu daal di ñëw mais boo xoolee depuis bi ñu defee alerte pour joxe point de vente yi nga xam ne moo war a am fii ci ndakaar ak li ko wër maanaam 40 point de vente moo fi war a nekk 40 point de vente yooyu boo xoolee ay benn benn ñu fay def xar te maanaam kon loolu mooy xari génnagul wala xari ñëwagul 40 euh, point de vente aussi tamit gisagoo benn yoon benn policier taxaw fa wala benn gendarme bu wonee ni sécurité bi taxaw na est-ce que tey jii euh, ñi nga xam ne ñoo yor seen i xar di jaay sécurité bi la ñuy xaar pour ñu génn ñu mën a am sañ-sañ yóbbu seen i xar wala gars yi ñoo nimee amagul xar yi ñu yóbbu walla ñoo egseegul mais est-ce teelul mbay parce Euh, tout en sachant que point de vente bi nga xamante ne fa ngay nekk yow euh, jaaykatu xar bi dangay ngay fay pour nekk foofu nga fay également li nga xamante ne moom la xar yi di dundee mm-hmm. yow également li xamante ne moom ngay dundee parce que souvent c'est des gens yoo xamante ne dëkkuñu fii mm-hmm. euh, tabaski bi des na ay semaine bu ñu naree ñëw léegi nii te Dakar on a yéex a jënd da ngay gis koo xamante ne sax bu dee tabaski bi suba la tey ci guddi guddi guddi gi ci lay dem jëndi parce que ñu bari ay appartement lañ am fu ñu ko denc euh, côté lekk bi ñuy jox euh, xar bi également dañ koy mhm. xalaat est-ce que c'est pas trop teelul dina am côté yoo xamante ni xam nga tey jii boo xoolee côté yi nga xam ne du ñu teel a jënd mooy ñi nga xam ne ñoo yor appartement yi. mais boo xoolee am na ci ñoo xamante ni yaat seen kër yaatu na wala am na fu ñu def xar ñoom bu ñu gisee xar dina teel a jënd aussi tamit dafa am beneen côté weer wi mu ngi soog wala première euh, boo xoolee ñu ci bëri bu ñu yoree seen xaalis li seen xel di njëkk dem mooy euh, bu ñu gisee xar jënd mais tey kii jënd yor xaalisam euh, war na fekk moom mu gis lu mu mën a jënd mais bu gisul rek pour jënd du ko yomb te tabaski yi ren yi weer wa day sori torop ay la 21 la ñuy tabaski mm-hmm. maanaam dèjà nit ñi bu ñu fayee rek li ñuy njëkk xalaat mooy jëndi xar mais li euh, pour ñu jënd même euh, côté lekk boobu ngay wax ak côté denc boobu am na ñoo ne ñu ngi nekk ci daral yi ñu ci bëri boo boo leen jëndee boo jëndee xar nangoo leen a fay euh, nangoo leen a jox li xar bi di dundee ca daral ba dina la ko dencal. Mm-hmm. mais fii ba tabaski depuis le 12 juillet ba tabaski passé amul benn kuy jaay xar ci daral di fa fay maanaam joxe nañ point de vente yépp amul fay. boo jógee boo dëkkee ba Tamba sax andi xar Dakar point de vente boo dem doo fay waaw maanaam euh, joxe nañ communiqué bi la 12 juillet boobu ba tey boo xoolee le 12 juillet ba léegi gisoo xar gisoo xar ci benn daral xaw ma nag xar yi lan moo leen teree ñëw mais àll bi xar yi ñu ngi commencé di ñëw ndànk-ndànk mais boo nee dakaar tey du ñu teel a jënd rek ñu ci bëri loolu moo leen di gaañ man euh, digalu ma ko kenn mhm. ndax xar yi ñu ci bëri yi nekk ci àll bi xar yu mag dina am mais xar yu mag day cher xar yu ndaw yi ñëwagul te xar yu ndaw yi est-ce que dina ñëw ndax fan xar yu ndaw yi ci bëri ngelaw li daf leen di yóbbu wala xiif ray leen du loof ba dee kon euh, képp koo xamante ni yor nga ci xar xaalis boo xamante ni jëndee nga ko xar te aussi tamit nañu jënd li ñu tolloon ba du xool euh, comme benn mbaylaay boo xamante ni dem na rek soxna si gëtën ko mu ne damay dem jënd benn xaru 700000. wala damay jënd xaru 800000 te yoroo ko da ngay wër ci dara gi ba sonn ñu tafu sa xaalis wala nga wër ba sonn te doo ko am. Mm-hmm. gis nga kenn ku ci nekk xam nga li nga tollool te xar boo tollool am na. soo ko gisul. nga jënd béy nga jënd béy. comme xadi colonel lim nar a def <laughs> te xam naa ni sax jënd béy du ci am na euh, euh, boo demee daral ñu ci bëri dama ciy waxtaan ak ñoom ne boo demee daral kenn ku ci nekk bu waroo def une heure wala deux heures de temps daral ndax li olof di wax naan bopp bët du yenu waaye xam na lu bopp àndal mhm. kenn ku ci nekk boo ñëwee ci daral ndax yar xar dafa metti ñi yar xar yi tamit du caagi ni li nga sonn ci xar bi euh, def ko def ko ci xar bi nga bëgg a récupérer ci tabaski bi tamit ay éleveurs yoo xam ne dañuy def leen mhm. mooy dañuy téye aj prix xaar ba nga xam ne yëf yaa ngi ñëw nag ñu commencé lu nar a jar quarante quarante mille ñu ne la cent mille waaw ñu xam ne xoj la xoj gars si baat parce que gisoon nañ fi li amoon ay ñoo xam ne camion bi day taxaw rek yow bu avant que muy kii sax da si oto bi ngay tànn bi nga bëgg waa ji da lay ne temps la à prendre ou à mhm. yow tiit nga jaaxle nga tu es obligé nga joxe xaalis bi. su ko defee di nga am xar waaye doo am doo ko toogee. waaw donc loolu aussi euh, Mbaye est loolu aussi war waruñu ko xoolaat. waaw te wax nga dëgg ndax parce que loolu wax nga question bu am solo mu fa laa doon jëm du question ni euh, nit da ngay yar sa xar li nga def ci xar mi ci at mi yëpp. wala coono bi nga ci daj yooyu yëpp nga bugg koo faye ko ci xar mi ci ki koy jënd si nañu am yërmaande ci ñiy jënd ci xar yi mm-hmm. ndax yor sa njaboot bëgg xar boo leen jox euh, boo sañoon loo yor nga jëndalee ko sa njaboot pour bëggalee ko sa njaboot jaamoo ci yàlla mais aussi tamit bul bul xool ni xar bi man xar bi laa bëgg yóbbu sama kër xar bu rëy bi laa bëgg ngay gis xaru jàmbur tamit di ci fay prix yoo xamante ni borom daf cee sonn doo boo xoolee ñi nga xam ne mooy am ci daral yi ñu ci bëri di ñëw ci daral yi di aj prix yi du borom xar yi ñooy aj prix yi dañuy ñëw ci daral bi indi seen i camion xar jël seen piliaan teg ne teg seen ataaya tey dañuy am benn mbaylaay boo xamante ne gidd lay doon mooy jaayal xar bi kaw mu nga xam ne moo jóge ci village yi wala jóge ci région yi ñëw teg mm. kooku mooy taawi xar yi mooy seral xar yi ndax man xar bu ci nekk am na benn pourcentage bu ko ci au moom mi nga xam ne moo ñëw am ay mais moom moom tamit day ñëw ne ko prix bi laa ci bëgg prix bi laa ci bëgg prix cirque la maanaam transaction la boo xamante ne kenn ku ci nekk dangay am loo ci jublu mais ba tey kenn ku moom sa marchandise a xool ni nga koy jaay mais man li ma ci joxee benn conseil boo xam ne képp ko jug nga pour dara pour jëndi xar bul toog naan damay xaar ba mu gën a yomb pour ma dem jëndi ku ci am loo jëndee xar nga yor xaalis dem gis xar bi nga bëgg jëndal dem teg fédération bi li koy andil mbay laay day xaar te xaar coro xaar xari colonel xaar ne damay xaar ba mu gën a yomb wala ba mu des trois jours léegi bu ñu bàbbeekoon nu ñun ñooñu ñëpp dem ci dara li mais dañuy aj xar yi dañ koy ak mais su ko su ko du du gën a yomb mais xam xam nga entretien bi nga xamante ne mbay laay wala benn maa ibra wala keneen kuy yëngatu ci élevage moom nangu na ko def ci xar ki nga xamante ne moom tabaski rek moom moo ko booleeg jëndum xar hmm. du ko jël teg ko këram ay jour yu yu bari yooyu war ko ci fekk hmm. également li li teewu di wax jaaykat yi dañuy tàmm xam nga dina am moment boo xamante ne demande bi moom mooy euh, offre bi moom mooy ëpp demande bi hmm. euh, foofu donc dañuy surenchérir seen euh, seen xar yi yéegal ko prix ya nga xamante ne après bu ñu demee nag ba yëf yi di waaj a jot ba mu des ay heure du Sénégalais yu bari dañu ko comprendre maintenant bu desee ay heure dañuy ñi prix yi parce que xam nañu ni que dafa nar a seen loxo et comme nit ñi maintenant ils ont compris ñoom it dañuy bàyyi ba guddi bi ñu daagu ndànk dem jëndi xar yi mais tey <laughs> am na benn année boo xamante ni maa ngi koy fàttaliku euh, ñi ci bëri politique boobu lañ doon def bàyyi bañ ne fajaru tabaski bi ñu dem jëndi ba ñu demee ca daral ga dañuy fekk ay lama lan lañ fay fekk ngooñ wala baraadaat kaas daral yi day jeex jëndum xar fii ci Sénégal moo waxat ko tey jii amul kenn ku la mën a waatal ne xar yi dina yomb wala dina am wala dina bëri wóorul mën na seer mën na yomb mën na am mën na manqué. bu manqué ça veut dire que suñu ministre liggéeyu. waaw xam nga ñoom tey génn nañ seen boo communiqué ne euh, soxla na sept cent cinquante mille moutons lañ soxla Dakar rek soxla na deux cent soixante mille mais xam nga tey ñoom euh, soxla xayma rek lañuy ñuy def chiffre la ñuy joxe. def nañ ay démarches dem ci Mauritanie dem Mali wóoleen pour ñu ñëw ñëw mais est-ce que ñooñu dinañ ñëw wóor. mais ci ci ci ressort ministère bi la ñu ñu ñu lijjanti loolu gouverner c'est prévoir bu ñu xamee ni sénégalais yi lii lañu ñu soxla kay. Oh, waxuma la indi loolu sax mais de devrait avoir plus que ça. mais parce que mais lenn la nag le problème ba léegi. Hmm. dafa am loo xam ne dafa am. amatul zone de pâturage. Hmm. lépp foo gis ay espace yu doon am ay tool ay ñax gars yi jël nañ tabax fa. tabax politiciens yi ils contribuer à la mort de l'élevage parce que fu war a am sàmmkat bi war a dem yóbbu fa jur gi pour mu lekk nga jël fa tabax fu war a fu war a am tamit kii ñu accaparer terre de ce fait moo tax jur na leen parfois nga gis souvent ay conflit baykat yi ak ak ak ak sàmmkat yi lu koy lu koy andi mm-hmm. mooy leen fii waroo fi ñëw kii ne man maa fi moom sama tool mhm. parce que bu ñu créé woon zone de pâturage mhm. dina ko créé kon beneen mbir aussi mhm. mbirum euh, subvention aliment de bétail bi ñu ngi koy wax mais est chaque fois dañu war a xaar rek tabaski moo jot wala dara ñu ne day jàppale gars yi si si bataay dafa war a nekk loo xam ne permanence asseoir benn politique boo xam ne ne aliment de bétail mun na war a nekk accessible nan lañ ko war a defee je crois que am na ay usines sax yu fi nekk privé rek mais état bu war na réfléchir dans son dans son projet comment essayer d'améliorer le le le l'aliment de bétail. ñoom nan lañu ñu mën a yokk production usines yooyu. Mm-hmm. est-ce que ñoom waruñu mën a créer seen affaire bopp. Mm-hmm. loolu yëpp aussi mu ngi si mais boo toogee mm-hmm. doo am politique de planification. donc il il va sans comme li nga wax xadi ça va se répercuter sur la production. production duñu am jur bu bu xam ne ne. bu bu bu bu quantitatif. bu am qualitatif. donc ñaari point amuñu lu mat amuñu qualité fu ñu jëm chaque fois dañuy nekk dépendant. te je crois que réew buy def toujours dépendance extérieure di jóge ci sous-développement. man mbay li ma gën a gën a kii mooy. Euh, dañ ne comme ni nga wax ne 40 points de vente moo am. fii ci biir biir Ndakaaru la ñu wax. Mm-hmm. Mm-hmm. mais est-ce que loolu dina dina suffisant pour quantité bi nga xam ne ni moom la ñi nga xam ne ñoo di askanu Ndakaaru di soxla. aussi su fekkente ne loolu am na aussi est-ce que ñun ñi ñu ngi am information que ni point de vente yi fii la ak fii ak fii ba ku ci nekk soo jógee di nga xam fan nga jëli jee saxaar wala di nga xam fan nga mën a amee jee saxaar aussi dañ ciy gis ñenn ci euh, nit ñi ñoo xam ne nii dañuy nekk di wër xoo weer di demal ci banlieue dañuy nekk di wër yor pajjaru xaar nekk di wër ci mbedd yi di jaayaat et tout est-ce que su ñëwoon point de vente am na fii nit ka na dem toog foofu euh, nit ñi duñ ko fa gën a mën a fekkee du gën a yomb mm-hmm. waaw Thioro posé nga question bu am solo ndax point de yi li li nga wax euh, dafa am solo trop am na point de vente yu ci bëri aménagé guñu ko. Mhm. tey boo fa romboon doo xam ba xam fii point de la walla déet. kon nit ki du mën a préparer sax tam pour dem jaay yóbbu fa ay xaram boo xoolee bu ci mal ni euh, Sicap Mbao Fora. Mhm. foofu ba tey euh, defaraguñu ko. Mhm. tey boo xoolee doo. Liberté 5 aménagé guñu ko tey boo xoolee nee na Léopold Sédar or côté boobu am na point de vente foofu boo fa jaaree doo xam ba xam fii point de vente la te heure bi war nañoo mën a defar espace yooyu yëpp ba ku fa romb xam ni fii point de vente la maanaam dañ ko joxe noonu rek na tijji na bunt yi ku mu neex mën na dem mais lu jiitu maanaam mooy ñu defar ko toppatoo ko yóbbu fa sécurité boo xam nit ñi dinañ am sañ-sañu dem yóbbu point de vente clandestin yu bokkul ak 40 yi bëri na bëri na man mi comme par exemple xari colonel mën na dem jënd ay xaram teg ko buntu këram. di jaay. bëri na bëri na ñuy jógee ci point de vente yi nga xam ne état bi joxe na ko ñu fay dem di ràngu di ñëw di ko teg seen buntu kër. di jaay bëri na. maanaam tulleeg maar li lay doon fu mu neex waaye samp rek dem toog samp fa di fa jaay see xar. c'est man dama jàng ci euh, affaire tabaski. Mhm. bu ngeen fàttalikoo ay attaques nii ñu ngi chaque année. si cause lay doon ci population mhm. Mhm. mosuñu benn jub tabaski nit ñi seen xel dal mhm. te ne xar dana am te prix dana abordable musta am comme ni nga wax rek mu kenn mosul mënu laa wax ne xar dana yomb wala dana am wala du am donc euh, euh, ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk euh, affaire u élevage ak yenn secteurs yi naa ne daal seen xadañ des na parce que l'expérience sert toujours à quelque chose lii am na vivre nga ko ren bien que bon je sais que le ministre euh, Aminata Mbengue Ndiaye que je salue au passage euh, jàmbaar la jigéen ju mën góor la jàmbaar la vraiment et ce débat mu ngi dem ci dara yi mu ngi dem ci pays et cetera mais euh, ça c'est des actions ponctuelles c'est ça dafa war a doon politique boo xamante ni c'est bien pensé avec une plan planification qui su ki euh, qui est qui à la base. nga xamante ni dañuy prévoir lu baree baree bari. mais chaque année rek les mêmes problèmes jaaykat yi di ci profito di euh, def ay en surenchère du ci génn d'ailleurs xam naa ne sàll nii daal danañ kontaan parce que dégg naa beneen benn beneen structure bi nga xamante ni gars yi dañ du fi nekk. nee nañ dafay jaay ay xar. te xar ya dégg naa daf dana yomb. donc am na wala amut mais xam naa ne bu amoon euh, suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom dañuy profité ci jafe-jafe askan bi pour enrichir mm. bu boobaa yaakaar naa ne dina dina soppi